fii tey doo fi nelaw. ndax caat ngeen nekk fii di reyante ku ne naan sa morom am teel weer koor la nekk. yaramal sa bopp moo tax gis nga yow yaa may bëgg a may dégg yow lan la yow ku ñëw nga am si moom lii ba. waaw. yow ënn tamit sama mboolu. waaye léegi ceeb ba daa manqué lax ya manqué yow sama bàjjen daal ñëw na kër gi ak ay bagages am dinaa ko dugalal yaramam bi yëpp day métti da ko doon soppi. mooy nan ngeen mën a xoolee cat di ko jox xaalis bu mel noonu bu koy kàddee. ma a ceeb nañ koy toog gis ngeen a lekk ma ne benn ma la maa Papis lay wax nii yow. eh jugal Papis jugal fii Papis jugal. mu naan soo de fi ko yàq kër gi. ngeen jot a jaar ak li ngeen dund yëpp waaye nan bi nenu ginaar bu góor la waaye waaye lii neex na waaye ku nen lii